tey ñu ngi fii si si CICES si journée Serigne baare bi nga xam ne sëñ Bassirou Khadim aw Ba mu ngi koy def année bu jot di ko sargalee ñi nga xam ne ñooy ay maamam tey nag di dëppoog li nga xam ne mooy le 25 novembre mu mel ni ñu ngi toll fii nga xam ni mooy si waañ bi li nga xam ni moo ëpp solo mën nañ ni si liggéey bi ndax bu ñu xoolee suba ba léegi ñu ngi si waañ bi lu jëm si wàllu ndekki yi jëm si wàllu añ yi ak lépp loo xam ne rek day berne jëm si bis bi kon nga gis ni nga xam ne noonu lañ ko àndee ànd ak mbokki taalibe mu mel ni daayira yi bëri daje nañ fi tey ngir ànd ak sëriñ bi ci li nga xam ne mooy ci liggéey bi kon daal ñu xam ni ñu ngi toll waxtu wi ci waxtu añ di waajal añi mu mel nit bu ñu añee ba pare rek daanaka berne yi foofu lay yem kon ñu gisandoo ni nga xam ne noonu la ci mbokk taalibe yëpp teewee wax nañ ko léegi mu mel ni waa Louga waa dakaar ak ñëpp ngoo xam ne taalibe Serigne Bara nga daal di teew si bis bi bis bi nag di bis boo xam ne bis bu mag la ndax 16e lu lu yàgg la mun nañ ni def na fukki at ak juróom benn nga xam ne sëñ Bassirou mi ngi koy ànd ak waa kër Serigne Touba bu ñu xoolee bis waa Kër Sëñ Touba yëpp teew nañ ci kon moom relation ak waa Kër Sëñ Touba yëpp dafa nekk loo xam ne lu wér la lu dëgg la relation euh, mbokki taalibe la relation nga xam ne ah, ay ay ay jullit nga xam ne taxawaayam ci yoonu Kër Sëriñ Touba yëpp da koo matale sëkk. kon daal ñoo xam ne daal ñu ngi tollook waxtu añ ñu ngi nii di waajal añ yi di ko waaj a fi nga xam ne mooy si baas bi xam naa daleen leen bàyyi rek ak image yi ngeen ngeen ngeen teewlu ko baax a baax salaamaaleykum wa rahmatullahi wa سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ma jóg liggéeyal Serigne Touba te sàkku ngërëm ci barke Cheikh Moustapha ci barke Cheikh Moustapha Mbacke Serigne Bara ma jóg liggéeyal Serigne Touba te sakku ngërëm ci barke Seex Mustafa Mbàkke ak Sëriñ Baara ci kattanug yàlla ak njool Màkka ak ña ko dar lay tàmbalee ci mbirum si di Lamin Baara. waaw salaamaaleykum yaay booy ñu ngi di nuyu di leen siyaar bu baax a baax ñu fekk leen ci waañ bi mu mel ne yéen ngi bëgg a sori si añ yi yan yan kàddu ngay sànni. waaw ñoo ngi ñoo ngi nuyoo bu baax a baax di ziar di ziar bu wér a wér a wér di ziar sëñ Bas bu wér a wér. ndax bisam bi yàgg na lool ndax man ci foire bi laa nekk waaye bis bi moom yàgg na ba muy ba muy surne booba kenn surnewul ci foire bi benn sëriñ surnewul te euh, bis bi ñor ko lool bis bu desee weer lay ñëw foire di def ay bernde di joxe ay paas di dimbali paas man sama restaurant dama koo tëj dem ba léegi ngir yàlla ak jëmmam ne ko ngir yàlla ak jëmmam ak bëgg gi ma bëgg sëñ baara bi ñor ko lool mu jël sama rak doom yu góor yi nag bëgg xale yi tenir xale yi bis bi ñor ko lool lool te CICES rek la bëgg te ñun ku bëgg CICES rek dañ lay bëgg ndax ñun CICES lañ ne dafa daan suñu doole waaye bu duggee CICES ñoo xam ne yëg nañ ni rek dugg na CICES wax dëgg yàlla démb ba léegi bu semaine a ngi nii bernde yi bari na nag yi bari na macha allah fi mu ne ñu ngi woon suba ba léegi fajar ba léegi fi lan fanaan daanaka ñu ngi ci añ yi fi na ne añ yëpp sotti na dañ koy ñaanal yàlla yàlla dooleel ko kàttanal ko. ci de ci dooley Serigne Touba wax dëgg yàlla ndax bi muy journée fii man yàgg naa foire am naa fi vingt ans boobu benn Serigne journée journée wu kon ñu ngi koy ñaanal yàlla mu yokk ba yëg ko ci daraje Serigne Touba. mën nañu xayma ñaata ñaata mbana ngeen teg tey añ. laay teg nañ peut-être soixante mbana waaw soixante mbana wallaahi soixante mbana ak ay deux cent nag rey nañ ko waaw. daanaka añi daal mën nañu wax ni soreetul. waaw añi moom soreetul daanaka pare na pare na ndax ci lan fanaan dem ba léegi ci lan fanaan. wallaahi ci lan. yan façon plat ngeen ni def tey tamit. ah def nan ay ceeb yu baax a baax def mbaxal def nan tufe façon berne bu ne am na fi daal wax dëgg yàlla gileem yi rey nan ko rey nan nag yi rey nan pitax yi lu ne am na fi wax dëgg yàlla. wax euh, ñi nga àndal ci liggéey bi. waaw mooy taalibe yi rek ñoom danoo baax taalibe yi wax da am pësteef waaw waa Kébémer desuñu waa Dakar desuñu waa Louga desuñu waa Touba desuñu te boobu ba léegi ñu ngi ci liggéey bi nangu sa jigéen ñu ñu laal ñu am pësteef lool nag. ko lépp mat na wax dëgg yàlla lépp sotti na taxawaay yi rafet na lool lool lool ma ne ko taxawaay yi rafet na lool iluhum xam nan sëriñ baara wasas ma yaay luhum wasan ja yaay luhum ki leen di jox ndigalay sii di lamin baara yooye malaayika seenub lim juróom ñett lañ yu bokku taawu aras wóor na sëriñ baara yooye malaayika seenub lim juróom ñett lañ yu bokkutaa wara sóor na sëriñ baara yooye malaayika seenub lim ñu ngi leen nuyu di leen siyaar mu mel ni ñu leen fekk ci waañ bi bokk ci liggéey yi ëpp solo ci liggéey bi waañ ba nan ngeen ci taxawee ak nan ngeen ñëwee tey. waaw ñoo ngi siyaar bu baax di leen jox seen wàccuwaay di leen bëgge di leen jaajëfal yéen tamit sonn ngeen ci lool ñun nag ñu ngi jóge ba Kébémer tey bis mi dong tax ñoo jóg waa ñu ànd ko ak Baye Fall yi yëpp di ginnaaw ñu ñëpp daanaka Kébémer lañ jógee waaw tey it maanaam gars daan doon jàmbaar lool doon ay xitmakat lool tax. waaw maanaam daal man naa lii ñu ñu jox nii daal maanaam loolu lan xam ñun xamuñu lu dul ma moom rek lan xam barki Sëriñ Faal bu nekkee Kébémer noonu lañ koy defee fu man ti nekk ci àdduna bi noonu lañ koy defee kon daal daanaka comme lii ñu tax a jóg daal moo tax ban xëyee ba léegi nii daal lañ ko nekk yow fajarteel nekk ci liggéey bi waa ta fas yéene daal maanaam lépp luñ bëgg ci liggéey bi daal sëñ ba maanaam yeggaleel ñu ko daal moom daal foofu daal lañ ko fas yéene taxawee daal incha allah waaw ah, mu mel ni yàgg ngeen ko ànd ak sañ euh, Bassirou Khadim Awa Ba année bu nekk mu di def ngeen jóge ba Kébémer di ñëw la maanaam taxawaayu sëriñ bi ak lan lan nga ñu mën a wax si sëriñ Khadim. waaw moom suñu sëriñ la suñu kilifa la suñu lépp la tayit maam doon ko baax tayit maam sigil waa Kébémer fan nekk ma fa nga xamante si ni mooy dëkkam sigil nañu maam tamit sagal nañu tayit ñun lan lay tiitaroo amul ñeneen ñu dul ñu maanaam moo tax ba mu ñu yëgalee bés bi ñu bàyyi lépp lu doon def maam ñëw taxawee ko. am ci taxawaay bi ma sëkk te itam di wéy ci ay ndigalam rek xam nga moom tamit di ko sant bu baax a baax a baax ndax lii kaa ñu liggéeyal sëñ Tuubaa moom ku képp koo xamante ne nii mi ngi la ciy woo rek kooku dalaa bëgg a dimbali te it ñun danoo bëgg a jariñu te it loolu doo nga tax te ñun ñoo ñun ñoo jóg daal ne ay Baay Faal lan kon amaana lii rek lan lii rek lan mën a def moom tamit dañ ko ciy sant bu wér a wér a wér a wér ndax bu ko neexoon mënoon na ñoo woo ci leneen te bu boobaa dañuy nekk ci leneen comme yàlla dimbali ñen ba nekk ci liggéey sëñ Tuubaa bi Kébémer tamit ña fa nekk bëri na mu ràññeel ñu lool tey ñu ànd kook suñu njëwriñ waa Wadane Sougou boo dee xool mi ngi ci biir mbooloo mi daanaka moom tamit moo ñu find mooy suñu njiit daanaka moo ñu naan def leen ñu def bàyyi leen ñu bàyyi kon daal ñun ak kontaante daal lañ ci am waaw di wax ñu sëñ bi daal moom ñoo koy sant bu baax a baax di ñaanal suñu boroom mu yàggal ko te wér waaw mu yàgg mun nañ xam fan ngeen toll si si añi waaw añ moom gars yi xam naa ne léegi ñu yàgg ndax sóor na ñi instant bi ñi ngi wëlbati ci nii waaw xam naa daal gars yi instant bi daal léegi daal mu maaw mu farang fàcce daal waaw gars yi moom waaw yéen tamit moom ñoo ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di ñaan télé bi fi ngeen nekk yàlla suñu borom jëmale ko ca kaw ndax démb ba léegi yéen a ci te noppaloo woo leen benn yoon kon nag yàlla suñu borom fay rek li ngeen ci bëgg yàlla moo ko xam yàlla suñu borom defal leen ñoo ngi leen di sant bu baax a baax a baax di leen gërëm waaw jërëjëf yéen. salaamaaleykum ñu ngi tubaat bu baax di jégalu di sant Serigne Touba Khadim Rasoul bu baax a baax a baax naan jërëjëf Serigne Touba jaaraam maam Cheikh Ibrahima Fall euh, di gën a sant bu baax Serigne Bara Mbacké mi nga xam ni moo waral lii lépp ñu toog fii ñu jugee ba Kébémer dikk fii ngir xidma liggéeyal Serigne baara Mbacké ndax ñun waa Kébémer amuñu ku dul Serigne baara ndax ak nun mënti mel rek Serigne baara moo tax ndax moo sant Kébémer ku xam Kébémer dëgg xam ni waa kër Serigne Bara Mbacke yi leen waaw ñu nekk fii di waa kër Serigne Jéeri waa daan sugu dikk fii nii ñuy jox ñu wàllu waañ wi ñu nekk fii di xidma ñu am si mbégte mu baax a baax nag nag ndax lépp jaar na yoon waaw Baye Fall yaa si liggéey bi ñëpp jaar nekk si liggéey bi ñu nekk si xidma yu baax en tout daal kontaan nan sant nan bu baax a baax a baax a baax waaw di ñaan yàlla affaire yi gën a kawee rek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 jëf toppal gi Seex Ibrahima santub Sëriñ Baara koo xam ni ki mënu la cheikh bi ñu ngi leen di ziar baax euh, waa fondation sopp Serigne Bara tey ngeen teew si journée Serigne baara bi nan ngeen ñëwee ak organisation bi nan ngeen ci àndee ak sëñ Xaadim Awa Ba. ngi ziar ñëpp dañu koy seen wàccaay bu baax a baax ñun daanaka journée culturelle Serigne Bara te bu ñu journée culturelle Serigne Bara daanaka dañ koy jagleel waa kër Serigne Bara yëpp. ay fondation soppay sëriñ sëriñ sëriñ Bara dañ dañ ci am ab taxawaay maanaam sëñ bi dafa jël wàllum wàllum restauration beeg café geeg ndox meeg yëpp daa daa koy teg loxo moo tax taxawaay boobu lañ ci am daal ñu xam daal moom journée moom maanaam ki képp koo xam ne da ngay bëggee sëriñ Bara rek maanaam sa eh, maanaam sa journée la fondation bi nag moom kon ñoo ko faral di wax rek moo ngi nii fondation soppay sëriñ Bara la ku ne so soppee nag moom eh, tëjaloo ko kenn moom am na zone Touba zone Kébémer zone am na diaspora waaw suñu activité principale nag mooy ziar ak ak Mbàkke Kajoor donc loolu si loolu la ñuy dox aussi tamit dañuy dañuy def ay exposition si sur la vie et l'œuvre de Cheikh Lamine Bara Mbacké si dañ def si anglais si espagnol si si si arabe daal moom daal teguñ ko kenn daal képp koo xam ne moom bëgg nga see adhéré rek adhésion bi 1000 francs la da nga ak dég ak déguisement moo mën a daal loolu mooy objectif principal fondation bi daal. xam siège bi fan la fan la féete bu dee nag siège bi nag pour les nii bu dee zone zone Dakar moom seen siège moo ngi nekkee ay Masalik bu dee Kébémer angulu Sëñ Fallu bu dee Touba jumaay Touba bu bu dee Thiès euh, jàkkay Serigne Saliou Touré waaw la ko ñu seet. mën xam yan relation ngeen am ak Serigne Khadim sëñ Basirou. waaw sëñ Basirou Khadim moom suñu relation ak moom mooy moom moom dafa nekk membre ci fondation bi dafa nekk suñu kilifa bare ne nekk membre ci fondation bi. te itam mu ñuy jàppale si lu bare ba ndax journée bi moom moo ñu woo en personne dama bëgg ngeen ñëw e, e ngeen jàpp si maanaam moom daal ku baax la ñu ngi koy ñaanal si sa sa fanam te euh, gën ko doyal bu baax a baax si barke bi si sëriñ bi bada bi jàllato na sëriñ baara keroog ba Cheikh Bamba ne tey ajjana ku ca dem du ñàkk tey moo ca dem mooy ndoy sëriñ baara maam bu soo bëggoon na dem ñu ngi lay siyaaraat baax mu mel ne ñu ngi toll fii ci kafe gi nga xam ne moom it lu ëpp solo la fan ngeen toll ci liggéey bi ak nan ngeen àndeek ak mbokki taalibe ci journée Serigne Bara bi waaw ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent sant Serigne Touba sant Serigne Bara Mbacke ak Serigne Bassirou Xaadim Awa Ba mi nga xam ni moo waral bis bi waaw ginnaaw bu loolu weesoo gars yi ñu ngi ci liggéey bi waaw ñoom jëriñ lamin daanaka ñu naakaan sëñ Baara ñu naakaan lamin ñëpp ñu ngi ci liggéey bi waaw ni ñi buñ xëyee ci fajar démb ba léegi ñu ngi fi ci fajar gars yi naan xëy naan tàngal kafe gars yi naan ñu ndekki xéewlu waajal añ bi gis nga waañ bi ni mu demee gars yëpp ñu ngi ci ñu ngi ci liggéey bi daal ñi ci des ñu ngi ci wàllu wële waaw xanaa di sant sëriñ bi daal ndax depuis presque daanaka vingt ans waaw ñi ngi ci ànd ak moom ci journée bi mosuñu see tardé benn fan. waaw wax dëgg yàlla réunion yeeg yëpp ñi ngi ciy ànd ak moom ñi ngi koy taxaw waaw naaw loolu nag dañ koy sant ndax lu mel nii dafa war a law dafa war a law si réew mi ndax amaana liggéeyal sëñ Tuubaa moom du doy waaw liggéeyal sëñ Tuubaa du doy te kon buñ amee koo xam ni mën nañoo defal lu mel nii wax dëgg yàlla dañ ko ciy sant di ko si gërëm wax dëgg yàlla. seetlu nañ ni ku ku takkook ndaw ñi la ak bis bi nga xam ne daf koy def à chaque fois di ko jagleel ñi nga xam ne ñooy ñooy ñooy ñooy seeti Serigne Touba ak seex mu mel ni mënoon ne ko tuddee borom daraje wala yooyu waaye lépp da ko delluwaat ci liggéey sëñ Baara waaye delluwaat ci liggéey sëñ Touba. waaw Serigne bi moom seriñ Bassirou moom ku ko xam xam ni social mooy yëfam waaw social mooy yëfam kër sëñ Touba laay wax du ma kër sëñ Momadou Lamine kër sëñ Tuubaa gépp waaw ku ci nekk am na nu mel ak yow am na ràññeel le kër gum dugg di leen xam ni Serigne Bassirou Khadim Awa Ba moo ñaw waaw moom bu dee wàllum social wàllum ni mel ak ndaw ñi ñëpp amul kuy jaax te du la fajal sa soxla waaw loolu moom Serigne Touba defal na ko ko loolu moom la fépp fépp foo dugg ba ci Tiwaawoon bii passé lépp lu nekk defal def na ko sëriñ bi daal moom boo nee social daal moom ngay tudd waa boo nee social moom dañ koy tudd ndax uuf na ndaw ñi uuf na mag ñi ànd naa ñëpp séq ak ñëpp jàmm wax dëgg yàlla te nit mën na doon sa sëriñ mais am na nu muy mel ak yow li warloog moom doo leen ko séq yéen ñaar mais moom dafa doon suñuy sëriñ ba pare doon suñ lépp doon suñ jëwriñ di ñu jàngal nu ñuy liggéeyale Serigne Touba te ñun comme liggéey Serigne Touba moo ñu ñor moom muy setub Serigne Touba di ñu jàngal nu ñuy liggéeyal Serigne Touba kon buñ xoolee si moom rek dinañ mën a liggéeyal Serigne Touba parce que yu mel nii day day tax ndaw ñi dinañ mën a am ci luñ jàpp ndax boo xoolee niñ dugg si gaal yi di jéem a def loo xam ne naka sudul noonu tey bu amee site yu mel nii dina am ndaw ñi loo xam ne dinañ si mën a jàpp ba man si suturlu di si mën a gérer seen yenn kii ba suñ borom defal leen ay xéewal parce que tamit boo xoolee jamono fii kenn judduwaale fi alal kenn judduwaale wu fi dara lépp loo gis dalay dab day doon loo xamante ni si da ngay jaayante suñ borom dimbali la kon Tawfekh Vision man Moustapha damay ñaan ci jëmmi Serigne Baara mi nga xam ne moom laa yaakaar àdduna ak alaaxira mu dem ca kanam kanam ba tax ba bis bu amatee ñu koy dégg ca kanam. xar baaxi njolloor la daa sàlloo ba xëy ni melas taxar xarut loj la wax ni sëriñ mbaar bam ne dagaj rawakat ju baax ja daal di yàllaa ko fal mooy sëriñ abdul asis baar am na ci yàlla ngërëm